الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom nu ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni bokklewu ko ak kenn waaye nirlewu ko ak kenn nu ngi gërëm sunu boroom bi mu defaraatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru alquranul karim ci ndimbalu sunu boroom ñu ngi nekkoon ci saar wi di suratul kahfi boroom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu yegg ci laayey juróom ñett fukkeel ak ñaar muy fa nga xam ni fa la Muusa ak Xadar seen ab nit li jeexee ma digoon leen ni nit li Xadar ak Muusa ci nett li yi ëpp solo ci Alquraan la bokk mën nañ caa istinbaatee roccee ca génnee ca ay njàngale yu bari yoo xam ni amaana sax aji jégg ji doodul doonul woon foog ni njàngale yu amee solo nii te riche nii mën naa génn ci xissa boobu dafa fekk ni alquran moom moo mel noonu waxi suñu borom la xissa Muusa ak Xadar ginnaaw bu ñu ko tafsiree ba noppi wax leen na mu demee te sunna nittili ko nettali leen ñoom ñaar fa nu mujjee ci suñu dars bii paase dana jaadu lool te am solo balaa ñu koy romb di jàll ci aayaat yi ci topp ñu def ab waqfa ab taxaw boo xam ni am njàngaat lay doonaat boo xam dañuy delluwaat gannaaw duggaat ci biir qissa bi ndax am na ay njàngale yu am solo yoo xam ni ëpp naa romb jàll njàngale yooyu li ko waral mooy dafa am ñenn ci ay kuréel yoo xam ni dañoo jox nettali bi yitte joo xam ne joxuñ ko beneen nettali yitte parce que dafa mel ni fondement ci bâtiment ni nga xam ne noonu la ko aji tabax ji di joxe yitte ndax xam na ni bu baaxee rek la ca kaw moom day daal di jàppandi su safaanoo la ca suuf day daal di doy waar moo tax damay wax ni su fekkoonte ni mbooloo yooyu ñuy wax dañoom lu ñu tuddee rësu maal muy capital ci kuy commerce damay wax ni kon nettali bii moom ci alquran mooy seen capitalu mbir ndax dañ saa yëkk ay mbir yu baree baree bari ay tooxi doona yu bari yoo xam ne dafay am waaye boo làmbee nit ka lan mooy genn waayam ak wékk waayam day fekk ni nettali bii lay jël kon jaadu na ñu def ay taxaw seetlu ak ay njàngat yoo xam ni insha allah dinañ ci mën a jariñu bind bi maa ngi koy def ci alxadr wa atiqadatu suufiya fii xadr ci jëmmi boppam muy waa jooju nga xam ni moom lañ doon wax moo ànd ak Muusa ak li nettali bi nettali woon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy am mbooloo ci sufiyanke yi su ma waxul sax ñëpp bu dul ñëpp it ñi cay génn duñ bari ana lan mooy seeni pas-pas ci jëmmi xadar moomu balaa maa tàmbali bunt bi dinaa am ay tomb yu am solo yoo xam ne dinaa ko leeral bi ci njëkk mooy ñenn ci sufiyanke yi su ma waxul ñëpp maanaam su amee ñu cay génn it mbooloo mu néew la ñuy doon foofu nag benn tomb laa bëgg a leeral balaa muy amul lënt bu mu def ci suñu bopp yi ñu di ko jugaale mooy ñu bari ci ñun dañoo foog ni bu ñu nee sufiyanke rek mooy lu baaxut déedéet demewut noonu tamit loolu njuumte bu mag la dëgg la li ëpp ci li ñuy gis ñun loolu lu baaxut lay doon waaye jëmmi sufiyanke ñu askanale ko nit rek dox nga ni ko ku bon la déedéet loolu moom kenn du ko def am mbooloo lañ di góorgóorlu ca lañ nekk ñu xam seen cosaan bu baax a baax nag xam fañ sosoog seeni reen ak seeni cadre ak nañ gën a fonk ak yooyu yëpp yu ñu xam la doonte dañoo taxutu jóg tey waaye nag ay tarxiisa ci ëpp nag wax dëgg yàlla ña ca jubbantiku daanaka bariwuñ ndax boo dee xool ay imaam yu mag yoo xam ni tey xatta al aan dañ leen di ndamoo di jariñu ci seen xam-xam dañ leen ci askanalee waaye nag mën naa am bu fekkee ay tarxiis am na ca ñoom it tarxiis la yoo xam dañ koy tuddee comme na ko imaamu zahabi doon wax ci siiru alami nubala am na ñoo xam ne seeni tarxiis dafa néew a néew ba boo ko jëloon jël seeni mbaax mbaax suulee ko ko mu nëbbatu kon fàtteel seeni tarxiis romb jàll loolu manhaj bu am solo la ci nit ki xam ko buy jëflanteeg doomu aadama yi kooku mooy tomb bu njëkk bi ñaareel bi mooy ñenn ci ñoom wala ñi ëpp ci ñoom su ma waxul ñëpp dafa bokk ci seeni doxalin mooy dañuy faral di léeg-léeg di jàdd sharia maanaam sharia ngi nii nii la tëdd nga ni man nekkatuma ci sharia ndax sharia tënkatuma la may dund leneen la te leneen loolu danaa ko tudd sànq dañ koy faral di def waaye seeni tegtal yëpp mooy nekk netti lépp xadar ak Moussa jeex na amul leneen lu gën a dëgër loolu bokk na ci technique yi ñu koy jëfandikoo nag mooy dañuy séddale diine ci xaaj ko xaaj bu ñu tuddee sharia xaaj ak ñaareel bu ñu tuddee ko xaqiqa defe naa loolu da ngeen ko faral dégg fii moom ci Afrique soowu jant rawatina ñun Sénégal fi nu nekk loolu la ëpp lu ñuy faral di dégg kii aqiqa lay dund te aqiqa sax kenn du ko parce que aqiqa du arab loolu baat bu yàqu la xaqiqa la ñuy wax kon da nga dégg ne kii aqiqa lay dund mooy xaqiqa ñu ne kii sharia lay dund nga gis waa ji ñemee def tëj-tëj di tey ni innama te boo ko waxee mu ne le jàppal sa sharia nga bàyyi ma sama aqiqa kon dañoo xaajale diine ji ñaari xaaj bi ñu tuddee ko sharia bi ñu tuddee ko xaqiqa am ñeneen ci ñoom ñoo xam ci beneen waxin dañuy xaaj diine ji ñaari xaaj bii tudd zahir bii tudd batin yéenay waa zahir yéen moom jàngaleen alquran ji rek topp buxaari ak muslim di yàlla yàlla ngi ci ginnaawam loolu la ñuy faral di wax yéenay waa zahir zahir mooy lu fës batin mooy lu nëbb ñun nag ñooy waa batin batin mooy lu ay loo xam ne ay mbiram moom daanaka lépp nëbbatu wala boog ñu xaajale diine ji ci xusuur ak comme ni ko olof yi waxee ay ay xollit ak ay xollit akub taal maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo alquran ca kaw ak xadis yaa topp ci ginnaaw buxaari ak muslim ak comme ni ñu koy faral di waxee ndax baat boobu li tax ma di ko wax mooy ñoom ñooy faral di wax loolu ñoom ñooy xott xollit yi ñooy xott yi amaa ñee nag moom ñooy waa biir ñoom ñooy taal baag ya ca des wa illaa ba ñu ñëw ci nit ñi séddale leen ci ay xawaas ak ay awaam yéen moom yéenay xawaas yi yéenay awaam yi maanaam bu ñu nee yaay am yaay innocent bi rek lan la wax nga dem loolu lay tekki rek yaay innocent bi ah kii bàyyi ko waaye bul wax ak moom kii ca awaam yi la bokk dañuy faral di wax loolu ñoom fekk bu ñu nee awaam yi mooy seer yi ngaa kay moom ñi nga xamante ni ñoom xamul dara suñ nee xawaas nag mooy cadre ya ca biir nga xamante ni ñoom toj toj yi ñoo koy def maanaam loolu laa ko mën a tekki ñoom ñoo def toj toj yi moom mooy xawaas yi baat yi nag du baat la yoo xamante ni tuxmadu ala al itlaq aw tudammu ala al itlaq foofu tamit bàyyi ci xel bu baax baat yi du baat la yoo xam da ngay tëb rek ŋàññi ko ala al itlaq ni baat yi baaxut sànni ko déedéet baat yi doo tëb doo tag ko ni lu baax la ala al itlaq kon da ngay jëfandikoo wasatu ya gën xamewoon ahlu sunna su diggante baat yooyu mooy lan ñoom lu mu jublu ci baat yi ki koy wax lu mu jublu ci baat yi su fekkee li mu faral di dégg nit ñi di ko wax loolu lañ ci jublu moom loolu baaxut dañ koy ŋàññi waaye beneen sens bi nit mën na ko su fekkee li mu namm ci zahir mooy njàppam nit keeg sangum set mees yooyu nga xam ne nit mën na koo gis ci biti lam namm ca baatin mooy la nga fas ca sa xol baat sellal gaag su dee loolu la ca namm laa chaque tam zahir yeeg baatin ji baax na waaye dumu ca namm loola nag mooy problème bi su fekkee zahir ak baatin liñ ci namm mooy yi nga xam ne nit ñi mën nañ koo gis nga xam ne bu ñuy àtte ca loolu la ñuy àtte lañ jublu te baatin mooy lañ nubbu ca dënn yi te yonente bi dañ wax ne yónniwun pour ñuy xot ci dënn nit ñi di xool la ca nekk su dee loolu lañ ci namm baax na waaye nag dañ si dul namm loola kon nag baat yi dama wax ne duñ ko ŋàññi alal itlaq waaye duñ ko tagg alal itlaq donte nag ci ŋàññi ko la ñuy gën a jege parce que ñi koy jëfandikoo ñëpp lii lañ ci jublu moom li ëpp lii lañ ci jublu parce que loolu mooy feeñ ci seen i wax feeñ ci seen i jëf su ko defee mën ngaa joxe atte kon atte boo xamante nii ñu ngi teg alal qara'in kooku mooy ñaareelu taxaw seetlu bi ñetteel bi mooy wax gi nga xam ni Muusa daf ko waxoon Xadr hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda kii moom dañ koo fonk lool moom aaya jii moom dañ koo fonk trop sax ginnaaw buñ fonkee xissa bi ba noppi dañoo ñëwaat nag aaya ji ñu gën koo fonk xam nga lu ko waral mooy aaya ji seen tegtal bu mag la ci wane ne xaqiqa da nga war a jóg dem jàngi ko ndax Muusa dafa nekkoon ci dëkk bi ah nekk benn waay buy dox noonu rek yëf yëfaan yi mu yore bëriwul maanaam sharia la jàngoon lañ bëgg a wax daal maanaam ñoom la ñuy wax laa lay netti li Moussa sharia la jàng jàngul xaqiqa bi Moussa demee ba gis ni xadar mi ngi ànd ak xaqiqa te xam na ne xaqiqa mooy mbir ma Moussa bàyyi te lam fa bàyyi lépp dem jàngi xaqiqa moo tax mu ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushdan mooy damaa ñëw man Moussa ci yow xadar pour jàng si xaqiqa déglu bu baax gis nga gëstu bi gëstu la boo xam ni gëstu la bu ñu sonn lool dellu nañ ci ay maraja yu bari yoo xam ni benn bu ca nekk ci cadre yi nga xamante ni tey ahlu sunnati wal jamaa cadre yi nga xamante ni daanaka addina bi yëpp dañuy dellu ci ñoom ci xam-xam ci set ga ci wérle ga ca sellal ga mën naa ni nettil nañ xista bi indi ci ay njàngale yoo xamante ni ca loolu lañu tënkee gëstu bi kon hal attabiuka ala an tuallima mimma ullimta rushdan mooy dama jàng si xaqiqa loolu lay tekki moo tax aaya jooju moom dañ koo fonk lool kon dañoo war a jàngee xaqiqa ndax comme ni ñu jàngee sharia te it nag dañ koy jox yitte jul ma tëkk nag yitte joo xamante ni moom daanaka kuy feeñal ci njàngum xaqiqa rek boo ko dégloo balaa muy eggal rek faw mu tudd aaya ji moom kon rasumaal la ci ñoom beneen bi ci topp mooy di nga gis ñuy jëfandikoo ay baat yoo xamante ni baat lañu lëndëm te lënt léeg nga dégg ñu ne diw dañ ko defal kasfu diw koy borom zawq la gis nga gis nga kasfu ak zawq kasfu mooy maanaam nit ki yàlla muril ko ay kiiraay yoo xamante ni mën naa toog fii di jàng te àll wa ju nekk ca lawhul mahfuz xaw ma xam ngeen loolu lañ ci jublu wala déet waaye loolu lañ ci jublu kasfu mooy yàlla muril la ay kiiraay mën ngaa jonkan fii di jàng te àll wa ju nekk ca lawhul mahfuz kasfu mooy mën ngaa toog fii sa biir néeg bi di seen malaaka yi nañuy sujjootee ca asamaan sax kasfu mooy mën ngaa nekk fii di seen waa Amérique waa sa taalibe ya nekk ca ku nekk lam nekk yaa ngi koy gis am na ci koo xam ne day wax sax bay wax ab taalibeem naan ko booy ànd ak sa soxna sax sa biir néeg maa ngi lay gis xam nga loolu sax loolu loolu wallaay ku nit sax waroo ko wax parce que loolu dafa dafa dafa civilisé wul sax ba ba ku ñuy askanee xam-xam di ko wax gis nga booy ànd ak sa soxna sa biir néeg sax maa ngi maa ngi lay gis xam nga loolu moo dig doyee di dëgg amut leen loo def lu dul yërëm sa taalibe buy ànd ak soxnaam loolu doyee di dëgg la waay gis nga kon da ngay dégg ñu ne kas fekk loolu lañ ci namm léeg-léeg nga dégg ñu ne zawq mooy mos li li mu saf li wala fi naan li mu saf ki ko macca ko xam léegi nag ñoom dafa am lu ñu tuddee zawq mooy loo xam yow mosoo ko yow yéen xamu leen yéenay xawaas yi yéenay awaam yi yéen mosu leen mbir mi xamu leen mbir mi lu muy saf su ko defee kon dafa am yeneen loo xamante ni lu lu ñuy macc la wala lu muy saf lu ñuy xam loo xam ni ñenn ci ñoom ñoo koy xam ni ko def duñ ko xam su ko defee loolu dañ ciy sukkandiku di wax ay tajaangee ki ay mbóosóor loolu ca lañ dem nag ba yegg sax di wax ni naan antum taaxuduuna ilmakum mayitan an mayitin an mayitin wa naxnu naxudu ilmana an alxayi alladi la yamut ki am kas foog zaw nga xam ne dañ koy muril kiiraay yéen moom yéen yéen yéen ay ahlul xadis yéen moom mu ñu la lu dul xaddatana fulaan an fulaan an fulaan an abi hurayra an rasulillah ñun nag dañ naan xaddatana xaddatani rabbi wala xaddatani rasulullah wala xaddatani nafsi an rabbi xaddatani qalbi an rabbi maanaam ñoom soxlawul jibril di wàcc ñoom amuñ aajo ci jibril wàcc amuñ aajo ci yonente bi alayhi salatu salaam ay njàngaleem déedéet amuñ ci aajo parce que yow da ngay jële ci diw ah mu jëlee ci diw mu jëlee ci diw mu jëlee ci diw mu jëlee ci diw te ñoom ñëpp faatu nañ ñu ne ku faatu moom jërub jëlee ñun dañuy dem jël te yàlla direct bu ko defee ñoom dañoo jàpp ni mën nañu am ay ay ay tegtal ak i sukkandikukaay yoo xam te yàlla lañ koy jëlee direct wala yàlla moo la koy fal tam xal direct wala jibril jërub muy ñëw jibril sax doo ko soxla la waasita baynaka wa bayna rabbik soxla woo intermédiaire diggante sa diggante ak sa borom koo xam mooy dox ci diggante bi déedéet ñoom duñ ko soxla moo tax dañuy wax loolu di xasee loolu ñi nga xam ñooy sukkandiku ci teg texte yeeg alquran ak sunna ah yéen moom taxuduuna ilmakum mayitan an mayit wa naxnu naqudu ilmana ala alxayi alladi la yamut ku dee ku dee mu jëlee ci ku dee mu jëlee ci ku dee mu jëlee ci ku dee mu jëlee ci yonent bi ñun nag dañuy jëlee ci yàlla direct moo tax soxlawul li ngeen di yore mais tax amul benn yitte ci alquran amul benn yitte ci ci ci kàggu yi seer yeeg sunan yeeg yooyu amuñ ci benn soxla bokk na ci li ñuy jëfandikoo tamit al ilmu laduni al ilmu laduni mooy xam-xam boo xamee moom dirub jàngi dañ la koy sol te loolu defe naa leeraloon naa ci xisam lu ñuy sole amul déedéet ndimbalam yàlla nag am na mooy nga góorgóorlu jàng ba suñu borom dimbali la am lum la dollil waaye nag ku ñuy sol ak di sotti déedéet bu amoon kuy sol ak kuy sotti waat yonent saa sallam mooy sol saxaaba yi solul kenn loolu la saxaaba yëpp saxal solul kenn sallallahu alayhi wa sallam ilmu laduni ñu ngi ko jëlee ci wa allamnaaku min ladunna ilma moo tax dama ne la li ma la waxoon sànq ne la mboolem seeni sukkandikukaay boo dee seetlu daanaka xisab Moussa Xadir moom boo leen ko xamee moom bu yeboo ñoom dañ daal di nelawi kon tomb yooyu mooy yi nga xamante ni mënul woon a ñàkk ñu tàmbalee ko ndax bokk na ci li ñuy dimbale ci taxaw seetlu yooyu gis nga xisab Moussa ak Xadar xisa la boo xam ne bu sax la ci alquran loolu kenn weddiwu ko comme ni ma leen ko waxee sànq ci tàmbali bi wér na ni nii la demee woon te gis ngeen tafsir bi ci dars yi passé waaye nag kuréel yu bari ci sufiyanke yi dañuy jël xisab Moussa ak Xadar def ko sukkandikukaay soppi maanaaya soppi prix ya saxal ci ay mbir yu sax dàq ci ay mbir yu sax pour mën a taxal lan bëgg mu sax ñoom bu ko defee ŋàññ gi ñuy ŋàññ ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ñu tuddee awaam ñi jëfandikoo sharia bokk na ci wax ya nga xamante ni dañ koy wax mooy ki nga xamante ni mooy saaxibu sharia wërta ŋàññ saaxibu xaqiqa moo tax Moussa alayhi salaam bi mu ŋàññee xadar te jëf yam jëf Moussa amu ca ndam lu tax amu ca ndam parce que Moussa sariya la yore xadar yore xaqiqa gis nga kon maanaam baat yooyu ñu ma doon wax tànk dafa am jubluwaay yu rëy yuñ ci am su ko defee comme xadar moom sariya xaqiqa la yore Moussa yore sariya moo tax bi Moussa ŋàññee xadar ci jëfam ji amu ca ndam ndax bënn gaal gaal yëkkati miir baag rey xale ba ila axiri gis nga borom xam-xam yi dañuy wax ni ñi nga xamante ni ñoom lañ xam ñu njëkk a sóobu ci séddale yu mel nii ak di sukkandiku ci xisab xadar xam naa xam naa bu dut waa ji may njëkk a wax ci may wax moo ko njëkkee siiwal gi moom ba siiw nii kenn jiituwu ko ci muy tirmisi alxakim tirmisi alxakim nag ut nañ koo jaawale imam tirmisi bokk na tirmisi alxakim tirmisi la dëkkoon mook imam Tirmidi ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk dëkk Tirmidi abu ke abu isa a Tirmidi la tuddoon muy saaxibu sunan ah kii nag mi ngi tudd Tirmidi al Hakim ñoom ñaar ñëpp dañoo wax Tirmidi Tirmidi dëkk la ab dëkk la kon bokkuñu sax tur Tirmidi Tirmidi bi lañ bokk muy dëkk ba Tirmidi al Hakim moomu am na téere bu xam ni la ca nekk ci ay toj-toj kenn xamut nu mu toll mu tuddee ko xatmul wilaaya gis nga téere boobu bi ñu ko taalifee waa dëkk bi dañ koo dàq mu génn dëkk bi téere boobu mooy sam ñu dàq ko mu génn dëkkam tirmidi alxakim moomu dëgg la sax am na ay gëstu yoo xamante ne da ko ca xam-xamu xadis waaye nag téereem boobu moom ay tag-tag yu bare bare ba waa dëkkam ñoo ko dàq mu génn kooku mooy tirmidi alxakim moom daanaka moom bokk na ci seen sukkandiku kaay yu mag yi amma kii may wax nii mooy al imaamu tirmidi muy abu isa kooku mi ngi judd atum deux cent ci gàddaay gi atum deux cent ci gàddaay gi la judd mi ngi faatu atum deux cent soixante dix neuf kon gudd na fan lool ndax juróom-ñett fukki at yi manqué benn dund na ko kooku mooy saaxibu sunan mun nga dégg ñun sunan tirmisi kooku moo ko kon bu leen leen jaawale tirmisi al xakim moomu dañuy wax ni bokk na ci ñi ñu xam ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk a sóobu ci di leeral leeral yu mel noonu maanaam di ko wasaare di wane ni kat xadar moom yàlla dafa def sax ba yàlla sàkki adduna bi ca njabootu baay aadama ga la bokk xam ngeen waxoon naa ci dundu xadar am na ñuy wax ni ci doomi aadama yi la bokk ñu ne déedéet ci doomi xaabil yi la bokk ñu ne déedéet ci doomi ibrahima yi la bokk wax yu bari ala kulli xaal yooyu amul solo waaye bokk na ci moom Tirmisi moom li mu doon wax mooy xadar ba yàlla ta- tàkkee àddina bi la fi nekkoon ba tey bokk na ci yi muy wax tamit mu ni xadar moomu ci boppam maanaam bokkoon na ci ñi nga xamante ni fekkee nañ maat ak baay Ibrahim alayhi salaam bokk na ci li muy wax it bokkoon na ci ñu ànd ak Zul Qarnayni Zul Qarnayni incha allah du ma ci wax lu bari parce que xissaam moo topp ci xissa xadar ak Muusa bokk na ci li muy wax it mu ni moom sax moo nekkoon capitaine bi newoon ci kanamu soldaaru Dul Qarnayni maawul xayaat muy ndox moomu nga xam ni ku ko laal dund te ñu te la jën wa laaloon ba tax jën wa ni te nit jut dem loolu la Dul Qarnayni doon wër par mbir ma réer ko xadari daal di koy gis moo tax xadari ba mu ko gisee laal ko moo taxit mu des ci ba faawu loolu bokk na ci waa ji li muy wax moom Tirmidi alxakim xam naa xaw ma ku ku ci ku ko ci ku ko ci booleel xakim ji waaye ku ko ci boole wax na lu wér ndax waa ji ñor la nag ku muus la ku am xel la kon ci jamono jooju ba tey ci la Tirmidi alxakim daal di nekk waa joo xamante ni ramz la muy alam ci xam-xam bii nga xamante ni moom mooy xam-xam ak tasawuf ba gaa yi di dellu ci moom imam bu mag bu ñuy wax Abdurahman Cheikh Abdurahman Abdul Xaaliq borom xam-xam bu mag la ci muasiroon yi ñi jamonoonteel day wax ne wa laysa minhum sagiirun wala kabiirun mimman daxala fi tariqihim illa waddaa luqya alxadr wal axda anhu mu ne xamal ni ñoom sufiyanke yi amul xale amul mag amul ca kenn koo xam ne dugg na ci yoonu ba soobu ca nag lu dul rek balaa am lu ko neex dafay woote woon ni moom kat daje naa xadr moo tax ñoom it dañuy saxal ni xadr mi ngi dund ba tey ndax am na taj-taj yoo xam pour nga mën kaa saxal da nga naan xadira ma ko jox mu jeex mu ni amul benn kenn ci ñoom ku bëgg a saxal benn zikr bu bees wala aw ak julli gu bees wala ak jaamu yàlla gu bees lu dul day saxal ni maanaam moom daje naag ki nga xamante ni moom mooy xadar wa illa sax am na ci ñoo xamante ni ñoom dañuy faral di wax ni man ci yoonu xadar laa nekk maanaam xadare ma tënk Moussa tënk ma xadare ma tënk Moussa terme yu day waar la ñuy faral di jëfandikoo nag xadare ma tënk Moussa tënk ma wala boo kii moom ci place ab xadar la taxaw yow yaa taxaw ci place ab Moussa yëpp ay xeeti wax la yoo xamante ni ñoom dañ koy faral di wax moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne boo delloo ci tarjama cheikh bu mag bu ñuy wax Ali an-Nabatiti kooku ci seen cadre yu mag yi la imam Sha'rani mi ngi koy taalif kiyal ci ci benn téeréem imam Sha'rani ci ñi gën a garaaw ci seen kàngam yi la bokk moom it bari waa na ay taj-taj yooyu dégg yoo xamante ni boo delloo ci fa mu tarjamaal gaayam yooyu ca nga koy fekk bi mu koy tarjamaal dafa wax ni kaana yajtamiu bil Xadr alayhi salaam mu ni daan na dajeeg xadr waa ji bokk na ci ay maqaamam doon na dajeeg faral dajeeg xadr mu teg ci ni wa dalika adallu dalilin ala wilayatihi ni na loolu bokk na ci tegtal yi gën a rëy yi wene ni moom kat wàllu yu yàlla la ñu ni ko lu tax mu ni parce que xadr kat moom du dajeeg kenn lu dul kooka dafa am martaba ju kawe ci biir sariya bokk na ci yem doon wax it mu ni xadr sax du dajeeg kenn lu dul ñetti charte yi daa daje ci yow ñetti charte yooyu mooy ban nee na doonte da nga góorgóorlu ci jaamu yàlla ba mel ni malaaka ci mën a jaamu yàlla fii ñetti mbir yi dajewut ci yow xadar du dajeeg yow ñetti mbir yooyu bi ci njëkk mooy waa ji day nekk ci yoonu xadar moom moom amul jàdd amul amul yoonu Muusa mooy day defi tegtal rek te naan kër xadar laa bokk loolu loolu daal mooy wax ji loolu lay tekki rek kon lu dul da ngaa jaar ci yoonu xadar rek moom mu doog a dajeeg yow nga nangu ko ñaaral mu mooy bul am xirte ci wàllu àddina mbirum àddina moom sa yan bu mu ca nekk kon de suñu gars yi ñi nga xam ñooy woote wala daje xadar moom ñu ci bari moom kon bii dàq na leen moom wax dëgg yàlla parce que koo xamante ne yow bu ñuy dugg faculté jàng jàng bëgg àddina mën nañoo dugg sa bopp kon kooku moom bu dàqu na ñetteelu njàngale mooy an yakuna salima sabr mooy la nekk borom dënn bu set koo xamante ni dara newu ci ay mbon mbon ay ila axirihi boobu kadaalika day dàqu ci ñenn ci ñu ñuy gis ñun moo tax am na benn waay bu mag ci seeni cadre ñoo xamante ni ko woowu tur moom xam naa ne ñun buñ xamul jëmm jiit yàgg nañoo dégg wii tur muy Abdul Aziz ibni Mas'ud ad-Dabbar kooku nag ci ñu yàgg ña la bokk nag Abdul Aziz ibni Mas'ud ad-Dabbar kooku moo taalif téere bu ñuy tuddi al Ibriz al Ibriz téere bu garaaw a ngoog nag téere boo xam ni wallahi bu ma leen jukkiloon ay yenn ci mbir yoo xam ni jot naa koo jukkee ci téere boobu ba note ko ni leen yii waa ji moo ko wax xaw tuuti kon moom taxu si loon ay diiku bu doon ak lekk di ngeen suuf Abdul Aziz ibni Mas'ud ad-Dabbagh moom moo taalif téere boobu ñuy tuddee Ibriz nga xam ne tey fii moom téere boobu comme kaamilu alquran martaba jëm fi am moom ci ñenn ñi comme kaamilu alquran Abdul Aziz ibni Mas'ud ad-Dabbagh moom mooy mooy faral di wax ne boo demee ci téere ba bokk na ci li muy wax nee na amut fenn foo xam ni yàlla daf fay dogalee lu dul ñi nga xamante ne ñooy xutbu yeeg xawsu yeeg ñoom dañuy ñëw fekkee si ko léeg-léeg sax yàlla dogal ba noppi ñu ne ko déedéet du nii defee ko na ni bokk na ci li muy wax nee na daje boobu sax buñ koy def moom ñëpp ci kaw dënnam la ñuy taxaw man damaa yaakaar dafa am wax yoo xamante ni nit bu wax day fekk mu ñu tàtt nag naan tàngar ba dootoo xamante looy wax ndax daa am loo xam ne xel da ko mënul nangu sax ah àql bu ñu ko nangu fadlan an dalilin aw wa sharia kon bokk na ci yi muy wax moom day wax ni maanaam ci tënk xadr ak muusa te xoolal misaal ñu joxe ni mu garaawee gis nga ñu sukkandikoo ci xisab muusa ak xadr ba noppi dafa am wax ju kéemtaane ju mu wax mu ni misaalam xadr ak muusa su ma ko doon misaal mi ngi mel ni benn buur bu am ñaari bëkk néeg benn bëkk néeg moom danaan ko toogal fii sama wet su ko defee lu muy dogal gis na ko ku fa dugg si gis na ko luy xew gis na ko lépp dara du ko ump beneen bëkk néegi mu ni ko yow su ma amee ay yitte yow laay yónni ci mbooloo mi mu dem mu ni ki nga xam ni moom moo toog ci buur bi dara rëy buur bi di ko ump moo tax loo ko laaj ci buur bi mu xam ko ka nga xam ni mooy dem ca mbooloo ma kooku dara rëy mbooloo ma du ko ump moo tax li fi buur bi ump ko xam ngeen misaal moom lu mu ci jublu mu tax xadar mu ni xadar mooy ka toog fa yàlla moom dara du ko ump moo tax yu tag tajaat yi mbir yi def defaan yi mu def yëpp mu mën koo def te Moussa xamu ko Moussa nag mooy mooy xam naa kon ci gàttal Moussa mooy awaam yi ci awaam yi la bokk mooy kii dem ca mbooloo ma moo tax Moussa moo gën a xam xadar sariya foofu man benn taaliq rek laa ci def mooy lii ak ñàkk yar dëgg moo ci feeñ xam nga ñàkk yar gi lan la mooy tasbihul xaaliq bil maxluuq niir la yàlla ak mbindeef yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci boppam ci ay melokaanam amul ci lenn lu mu ci nuróol ak doomu aadama moo tax mu ni fala tadribu lillahi al amsal moo tax cheikh al islam ibn taymiya ci majmuatu al fatawa dani al mushabbiha yabudu sanaman wal muassala yabudu adaman kii jéem a wutal ni yàlla kum nuróol na xam ne moom jaamootut yàlla ab xëram lay jaamu buñu estati bu taxaw ki nga xam ne moom loo wax mu ne yàlla amul yàlla newul ci asamaan si newul ci suuf si newul ci ndeyjoor newul càmmoñ newul ci biir newul ci biti benn buur bi mu dajee am mbooloo mbooloo mi ñu ne yàlla newul ci asamaan newul ci suuf newul ndeyjoor newul càmmoñ newul ci biir newul ci biti mu ne kon dem leen wëri yàlla kon réer na ah du néew koo xam newul ci kaw newul ci suuf du kanam du gannaaw du ndeyjoor du càmmoñ newul ci diggante bi kon kay mooy amoo moo tax mu ne kon wëri leen baa ilaahukum seen yàlla ji réer na wëri leen ko kooku moo leen gën a muus parce que loolu mooy kon yàlla amut ahankay am na te ahlu sunnat wal jamaa li ñuy saxal te moom mooy al aqidatu saxixatu salima mooy yàlla mi ngi ca kaw asamaan ca kaw arash ci jaam ñëpp xam seen lépp nag kon gis ngeen misaal moom nga xamante ni moom la joxe ala kulli xaal su ma duggoon bëggoon a dugg ci li ma bëgg a wax dëgg-dëgg mooy ñoom kat bokk na ci seen i tegtal yi nga xam dañ koy sukkandiku ak seen i mbir mooy dañuy jàpp ne xadar kat moom du yonent waaye wàlliyu yàlla la maanaam xadar dëpp yeneen waaye wàllu yàlla subhanahu wa taala ñaareel bi moom mooy duñ nangu ne xadar faatu na tamit déedéet duñ nangu ne xadar faatu na dañuy jàpp ne xadar mi ngi dund ba tey lii nag ab gëstu la boo xam ni boo delloo ci kàggu yi sunna yi borom xam-xam yu bari wax nañ ci boo demee ci al isaaba fi tamyiz saxaaba téere boobu dinaa koy tudd lu bari sëriñ bu mag bi alxaafid ibnu xajar moo ko taalif gis nga bala nga xam ne saxaaba yi ñoo bari nga dem ci téere boobu xam nga téere yi ci des sax al istiab bu ibn abdul bar wala usudul gaaba bu ibn al asir wala yu demee noonu wala siramin wala bu imam zabi boo ci delloo sax di nga xam ne saxaaba yi bari nañ waaye ci biir téere na ngay jël bëgg xam ne saxaaba yi bari nañ gis nga boo delloo ci isaaba al xaafid ibn xajar lu toll dix mille huit cent cinquante huit ci ay nit tarjamaal na leen fa ci saxaaba yi doonte nag te xam ngeen loolu lu bari la dix mille huit cent et quelque fa mu tàmbalee ca waaju njëkk ja ñu koy wax abil lahm borom xam ne ñoo xam li tax ñu di ko wax abil lahm mooy danoon bañ yàpp daawul lekk yàpp du abil lahm abil lahm mooy danoon bañ yàpp du lekk yàpp kooku la njëkk a tarjamaan boo demee ba ca mujjantal ga waa jëm ko mujjee tarjamal muy abu yazid ibn abi mariam donte wuute dañ ci aw turam sax wax ci yeneen wax am na ñu naan abu mariam at-taluli la ala kulli xaal moom la fa mujjee tarjamal da nga fekk dix mille huit cent et quelque ci ay nit yoo xam tarjamalem donte nag ñu baree baree bare daf leen cay dugal waaye duñ ay saxaaba gis nga li toronte mbooloo mu bari nag mooy dafa boole xadr ca ñam doon tarjamal foofu boo demee ci isaaba fi tamyiz saxaaba dafa tarjamal xadr gis nga moo tax gars yi bokk na ci tegtal pour wane ni xadar mi ngi dund ba tey dañuy wax ni ibn xajar sax ci seeni ponkal la bokk te moom saxal na ni xadar mi ngi dund ba tey ñun lu lu fu mu ko saxalee ñun te al isaaba waaye loolu ku xam ibn xajar xool ni mu tëggee téere boobu ak ni mu ko liggéeyee boo delloo ca mujallad bu njëkk ba ba muy wax nan la taalifee téere bi ak mbir yi nga xam ne moom moo ci jiitu def na ko ñeenti tomb ñeenteel ba ne na tomb bii sax moom xaw ma ku ko ci jiitu ci liggéey bu rafetee noonu calam xam la wax amaan na sax loolu mooy li am waaye bokk na ci muy tarjamal xadar dani man kat dama sart ci itaaba ni képp koo xam ne jiiñ nañ la li saxaaba nga sax dinaa la indi mu ne loolu moo tax ma indi xadar dégg nga li mu wax de kuñ jiiñ ñi saxaaba nga sax dinaa la indi mu ne loolu tax mu andi xadar donte nag ba mu pare da caa teg ni waaye ay tegtal yu wér saxal na ni bokkul ci saxaaba yi waaye nag taw mu andi ko damaa sañ ta dogu waaye moom sañ naa wax ni maa ngi yaakaar ni tarjama yi mu def yëpp ci isaaba daanaka bu bu li mu tarjamaal xadar moo tax xaw a ëpp xam naa su ma ta dogu wuti dinaa ko wax ndax mbir la moo xam ne boo xoolee bi muy tarjamal xadar tarjama ko tarjama ko yaatu andi ci ay mbir yu bari bokk na ca lii nga xamante ni ca lañ sukkandiku ba andi gëstu bi ñaareel bi alxaafid al allaama imam muhammadul amin alshamqiti ci téeréem bu am solo boobu di adwaul bayaan boo ci delloo leeral na ci masala mi leeral mu am solo soo paree tafatir yi boo ci dellu ibni kathir yi nga xamante ni moom la ñuy faral di sukkandiku doon te danañ dellu ci tafatir yi ah imamul qurtubi imam ibni jarir at-tabari imam ash-shawkani aima yi nga xam ne dañuy faral di dellu ci ñoom boo delloo ci seeni tafasir daanaka xissa bi indi nañ ko fa waaye nag ash-shaykh ad-docteur cheikh Mouhammad Ahmad Lo xafidahullah yàlla yàlla sàmm ko sàmmaale borom xam-xam yépp daf cee def benn gëstu bu am solo boo xam ni gëstu boobee ci lañ fas yéenee gën a sukkandiku comme ni ñu defee mu'tamad ibni kathir ci gëstu bii bi muy def risaala magistère dafa taalif benn téere bu am solo bu mu tuddee taqdisul asxaas fi l fikri suufi taqdisul asxaas mooy sellal gu ñuy sellal ay nit ci biir mbooloom sufiyanke yi boo ca delloo dafa ubbi bunt bu am solo boo xam ne gëstu yi la jot a def koo xam ne tansiq na te te te neex a jottali te leer ba mel ni bi mu ci def du ma wax amut waaye dama wax ni gëstu yi ma def moom àggagu ca kon liggéey na ko liggéey bu rafet moo tax ci lañ fas yéene sukkandiku pour andi ñi nga xamante ni ñoom la seeni tegtal di wax ni xadar mi ngi dund ñenn ñi ni xadar moom dundatut ñii ni yonent la ñii ni du yonent wàlliyu la boo ci delloo ci téere boobu comme ni nga xamante ni am na ci yeneen yoo xamante ni dañ ko jëlee ci maraaja yooyu ma tudd dafa wax ni am na ci ñoo xamante ni dañoo jàpp ne xadar moom du yonent waaye wàllu yàlla la lu tax ñu sukkandiku wax loolu parce que mën nga caa sukkandiku ca loola pour def ay toj-toj yu bari te ki yara sharia di ko jàngale du la mën a tënk du la mën a tere parce que da nga naa ko yow tënkoo ma ba di ma tere ñeneen ñi ñoom dañoo wax ni xadr mi ngi dund ba tey te loolu bokk na ci li tax mooy tey ba xatta al aan wa ila yawmina hada ila saatina hadihi am na ñoo xamante nii ñi ngi wax ay toj-toj di yoonal ay njàngale te dafa guddi gént yonent bi moo ma jox zikr sàngam xadar ma xadara ma ko jottali wala boog xadar moo ma nettali nangam sàngam yooyu ila yawmina hada ila saatina hadihi mi ngi am ba tey su ko defee kon buñ taxale ne xadar mi ngi dund ba tey loolu da leen arrangé waaye buñ nee xadar faatu na kon xam nga li ñuy wax loolu seen wax ji dootul mën a wérati kon saa buñ la waxee ne nangam la ñuy def rek am na luñ ca jublu kon bu ñu jubloo sooboo ci gëstu bi bi ci njëkk alqadiyatu al ula mooy hal kaana xadru alayhi salaam nabiyan aw waliyan faqat ndax xadr ab yonent la woon wala boog wàlliyu la ginnaaw boo xamante ni muqaddima boobu moo doon def maanaam jàll na mu ni am na ñoo xam ni nee nañ xadr ab wàlliyu yàlla waaye du yonent loola ibn xajar te ibn xajar ba léegi ci maraaji yi ma doon tudd sànq am na benn téere bu mu tudd al isaab mooy ma tudd sànq am na beneen téere bu mu tudd Fathul Baari bi mu sarxa Buxaari boo ci delloo tamit xista bi leeral na ko ca am na beneen téere boo xam ne xistab xabir kese ak dahru nadr fi nabail xabar téere boobu tegegu ma ci bët donte nag da nga dellu ci ay téere ñu di ko tudd waaye téere la boo xam ne ci mbirum xabir kese xaw tuuti kon ma ni kon boo demee ci itaaba lam ci indi daanaka li ci ëpp kon mën nga ko jukkee ji foofa mu ne ibnu xajar nee na am na ci am mbooloo ñoo xamante ni ci sufiyanka yi nee nañ xadr moom ab wali yàlla waaye du yeneen ku mel ni abu ali ibni abi muusa ak ci kooku ci xanaabila yi la bokk ak ku ñuy wax abu bakrin al anbar yi kooku borom xam-xam la bokk ak ku ñuy wax abul qasim al qushayri kooku moo taalif al risala abul qasim al qushayri kooku bokk na ci siin sukkandiku kaay ñoom sufiyanke yi parce que am na téere bu mu taalif tuddee ko ak risaala risaala googa boo ca demee yu bari ci yu ñuy wax ñoom boo demee da nga ko cay fekk nee na xadar nekkul woon ab yonent waaye wàllu yàlla la imaamul yaafi ay tamit ci téeréem boobu nasrul maxaasin al gaaliya moom it loolu la taxal seet bu mu ni boo teetloo mu ni ñii nga xamante ni ñoom ñooy wax ñëpp ci mbirum xadar li ci ëpp dañuy faral di wax ni xadar moom nekkut ab yonent waaye wàlliyu la bokk na ci waaju siiw ju ñu xam muy Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sharif comme ni ngeen xamee tur woowu nga xamante ni moom dëkkut fii waaye daanaka dafa mel ni fii la dëkk am na fi ay taalibe yu bari bokk na ci moom lim doon wax mu ne waalam an alxadir alayhi salaam waliyun faqat wa laysa bi nabiyin inda aljamhur mu ne xadir moom li gën a siiw ci borom xam-xam yi moom mooy wax moom Cheikh Tidiane mu ne li gën a siiw ci borom xam-xam yi moom mooy xadr nekkul ab yonent waaye wàllu yi la mu tekki ne qaala cheikhul akbar cheikh bu mag bi wax na xam ngeen ku mu jublu ci cheikh bu mag bi ibni al arabi ibni arabi ibni arabi dafa am ñaari nit kenn ki mooy ibnu arabi mooy waa ji mu ndur kenn ki mooy ibni al arabi abu bakrin ibni al arabi kooku moo taalif al awaasim min al qawaasim tàmbali naa charx al buxaari tamit am na yeneen téere yu am solo yoo xamante ni liggéey na ko Abu Bakr ibn ibn al Arabi bokkut ak kii kii mooy ibn Arabi nga xamante ni moom daanaka seen sukkandiku kaay la mu ne alxilaafu fiihi inda ahli zahir dégg nga li ma la waxoon de mu ne alxilaafu fiihi inda ahli zahir la indana fa inna maq fa innahu indana maqtuun bihi min al awliya ila min al anbiya Cheikh Tidiane mooy nitali mu ne ibn Arabi nee na wuute gi nekk ci nag xadr yonent wala du yonent moom daanaka ànd ahli zahir waa zahir mooy ñi nga xam ñooy topp ci ginnaaw Buxaari ak Muslim di dox comme ni ñu koy faral di waxee ñoom waaye mu ne ñun moom amuñu wuute ci ne xadir moom du yonent wàllu yu la cheikh bi mu ni boo seetloo ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ni xadir du yonent wàllu yu yàlla la ñoom ñëpp boo seetloo seeni tegtal nga boole ko dajale mu nekk jal nga teg daanaka kenn du ci indi benn tegtal bu dëgër lu dul ay waxi naxas ak kandak yoo xam ne ay xalaati kese lay doon allahuma dëgg Cheikh Tidiane moom jot na cee wax ay tegtal tegtalam yooyu moom la munaqasa fii tegtal yooyu bokk na ci bi ci njëkk benn tegtal ñaari tegtal ñetteel bi mu nekk ab gént boo xamante ni nee na Ibrahim at-Taymi te Ibrahim at-Taymi imam bu mag la yaa lay takkawoon ñu waxal ko lu mu wax imam Zahabi mi ngi koy tarjamaal ci siyar imam bu mag la bu ragal yàlla zahid la aabid muy ibrahim at-taymi dalilam bu njëkk mooy nee na bokk na ci tegtal yi wane ne xadir nekkul ab yonent wàllu yu yàlla la mooy boo seetloo ci bi muy bënn gaal gi Moussa dana ko laqad jita shay'an imra bi mu rayee gone gi mu ne ko laqad jita shay'an nukra mu ni Moussa ci boppam moo la gën a xam ni ab yonent du def ñu di ko critiqué kon li tax Moussa di critiqué xadir mooy da koy wan ni ko kon doo yonent dégg nga li mu wax mu ne Moussa moo la gën a xam ne yonent kenn du ko critiqué parce que xam nga yonent boo ko critiqué mbaa nga weddi ko da ngay nekk yéefar mu ne kon Moussa xam na loolu kon su sañee critiqué xadir mooy daa fekk ni maanaam da koo bëgg a wan ni ko doo yonent waaye wàllu yu nga kese moo tax mu critiqué ko ndax bu ko critiqué woon dafay daal di te fekk ab yonent la day daal di génn ci l'islam ñaareel bi mu ni ko boobu mooy gën a dëgër sax mu ni Moussa ci jëmmi boppam yàlla waxu ko ni ko xadir ab yonent la te su fekkoon xadir ab yonent la kon yàlla dina ko xamal Moussa Moussa dina xam ni kon xadir ab yonent la ñetteel bi mu ni dañoo toxal jëlee ci Ibrahim at-Taymi muy jàng benn zikr boo xamante ni nee na ci yonent bi la ko déggee ci ci xadir la ko déggee mu ne xadir nee na bi ko Jibril di jottali yonent bi la ko dégg xoolal yi wax yow wax dëgg yàlla daanaka comme caq bu dagg comme caq bu dagg ñaan gi maa ngi ko déggee ci xadir xadir mi ngi ko saataanee bi ko Jibril di di di dee yonent bi alayhi salaatu wa salaam cheikh bi xafidahullah mu ni mu ni tegtal yi boo ko seetloo ba ci biir kat wax dëgg yàlla daanaka mën naa ni moo sagari sën moo sagari sën ñoo bokk yam ndax li tax ni mu niroo sagari sën bi ci njëkk mooy ay tegtal yu wér dana ñëw insha allah ci bind bi di wane ne xadar moom ab yonent la waaye du wàlliyu ñaareel bi mu ni tegtal bu njëkk bi ak ñaareel bi bi ci bi ñu wax ni maanaam su fekkoon ci ni xadar ab yonent la yàlla dina ko xamal Moussa est ce que charte la si lim jàng ñu ab yonent faw mu xam mboolem yonent yi yàlla yónni déedéet du charte ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen gën ñoom ñëpp te yàlla nee na ko walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk yàlla yónni na ay yonent yu bari yu la jiitu ñenn ñi wax naa la ko ba nga xam leen ñenn ñi xamoo leen fa man maa nee kon Moussa du xam xadr benn ngo ñaareel bi mooy li lay wan ni Moussa sax dafa xamul xadr ndax Moussa bi mu taxawee ci banu Israila mu yëkkati loxoom mu ni man kat maa fi gën a xam biñ ko laajee yàlla ni ko am naa sama benn jaam bu tudd xadar boo xam ni moo la gën a xam Moussa dani ko kuy kooku fu mu nekk kuy kooku kay wax dëgg yàlla ku koy laaj mooy xamoo ko kooku beneen la beneen bi ci des mooy bi mu ñëwee bay wër di laajte kii kan la la ko wax kii kan la kii kan la kenn du ko wax koo xam kii kan la doo jàkkaarloog nit mu muuru nga muuree ko nga ne ko kii kan la déedéet kon yooyu dalay tegtal la yu lay wan ni kon Moussa ci boppam xamante wuloon ak xadar donte nag xadir moom doon na dégg Moussa nag Moussa kay moo mës a dégg xadir ndax bu ngay seetloo xista ba bi mu tiggee dani ko kii kan la mu ni ko man la Moussa mu ni ko Moussa man Moussa mu waa banu Israil dégg nga kon doon na ko dégg Moussa mu waa banu Israil fu mu ko déggee nag moo xam waaye doon na ko dégg cheikh mu ni kon ku seetlu tegtal yi kon da ngay xam ni xadir nekkuloon ab yonent Moussa nekkuloon di xam ki nga xamante ni moom mooy xadir ñaareel bi moom mooy xadri ci jëmmi boppam bokkul woon ci ñi nga xam ne yàlla dafa yónni Moussa ci ñoom ndax lu tax dañu ko Moussa am waa banu Israil waaw moom daa bokkul ci banu Israil mu am joxañ la ko jox Moussa am waa banu Israil kon bu ca bokkoon danaa ko xanaa sunu Moussa bopp wala Moussa am sunu waa dëkk beneen bi ci des mooy gént gi nag moom fii cheikh bi daf ci wax wax ju wax ju ju am solo wax joo xam wallahi dafa dafa xam-xame mu ne wa ama almanamatu fa hiya tijaratun gayru nafiqatin fi suuqi almunaqashat alilmiya allahu akbar mu ne damaa gént gis diwa gént gis moom nee na loolu moom wax dëgg yàlla ku am technique gu joxe xam-xam booy joxe ay tegtal bii da nga koy bàyyi mu ne wa ama almanamat ay gént moom fa hiya tijaratun gayru nafiqa commerce la budul dox fi suuqi almunaqashat alalmiya marché baccaaral xam-xam wàcc xam-xam mu ni bacc baccaaral ñëpp jël marché ba ñuy tax defee loola moom wax dëgg yàlla diw gént na loolu moom wax dëgg yàlla daf fay doyade trop parce que gént mënu faa nekk sukkandikukaay mu teg ci wax ju mag yoo xam ne imam Shaatibi wala I'tisaam moo ko wax donte wax ji nag nekkul ci I'tisaam mi ngi ci almuwaafaqaat mu ni inna shariata xaakimatun la maxkuma alayha shariat ci boppam mooy àtte ñëpp waaye kenn du ko àtte ndax su fekkoon ne li nit ñi gis ci ay xar baax wala li ñuy gént wala yu demee day ñëw pour àtte sharia kon kay sharia saa bu ñu xëyee mu soppeeku talaata day soppeeku alrami mu soppeeku alxamis mu soppeeku ajuma mu soppeeku bu yàggee day niru la waaja doon wax deseene leen ab baaxoñ ñuy deseene baaxoñ baaxoñ ba far niru mbaam day daal di soppeeku kon sharia mooy àtte waaye kenn du ko àtte nee nag képp koo xam ne da ngaa am sa yëf yëfaan yooyu indi yow da ngay ñëw jox ko sharia mu peeseel la ko wax la poids bi waaye yow doo ñëw di yëkkati sharia sharia sax daa xajul sa kaw poids faf ba nga koy àtte kon ñaareel bi moom mooy dafa aajowoo sax seneen xam nga Ibrahim at-Taymi ak li muy baax baax nga tëb tëb rek ni moo gént nangam loolu dafa yomb man man damaa toog fii ni leen sama maam bari ci démb ci guddi daa gént nangam nangam loolu dafa yomb ku nekk mën nga ko defal sama waaye ibni sirin te wax jooju ñu koy taxal jëlee ko ci malik wala ñu ne ibni sirin la wallahu alam ko ko ci ñu ko wax mooy al isnadu min addin wa lawla al isnadu la qaala man shaa ma shaa isnad muy càllale ci diine ji la bokk bu dul woon ak càllale maa ngi ko jëlee ci diw mu jëlee ci diw mu jëlee ci diw su dul woon ak loolu mu ne ku nekk da nga yeewu rek wax loso xam ngeen gis ngeen fi ay julli ay zikr ay wérd yu ñu def suba ak ngoon yoo xamante ni diwa tëdd ba guddi rek daal di gént gis ko yooye moom wax dëgg yàlla taxut mu am solo lool kon sanat bu wér gisuñu ko ci boo seetloo maanaam amul fenn foo xamante ni fu ñuy sukkandiku la fu ñuy mën a dellu ci kàggu yi nga xam mooy kàggu yi sunna yi fekk ko ca kon ñooñu moom loolu mooy seen i tegtal daanaka ñett yi mooy li ca gën a dëgër wax jooju Cheikh Tidiane wax mooy ñett yi jàpp ni sax moo ca xaw a tane te daa nuru lu dëgër rek mukk mu xaw a nuru lu set la fekk yow dafa ci lim ñaareel bi mooy mu tudd mu ni man qaala inna alxadir nabi mooy ñi nga xam ñoom dañ ni xadir moom ab yonent la mu ni daaba jamaahiru min ahli alilm walmuhaqiqin illa an alxadir nabiyun min al anbiya borom xam-xam yu mag yi am mbooloo ci ñoom muhaqiquun yi ñi nga xam ne wax dëgg yàlla adduna bi war ngal kat kenn werantewul ci seen xam-xam am na ci ñoom ñu bari ñoo xam dañoo sukkandiku ci wane ni xadr ab yonent la waaye nekkul wali bokk na ci ñoom al imam al qurtubi imam al qurtubi xam ngeen mooy borom tafsir imam al qurtubi saaxibu tafsir al kabir imam al qurtubi boo delloo ca tafsiram andi na fa ay tegtal yu wér yu bari yuy saxal ni xadr ab yonent la waaye nekkul wali yàlla الإمام الحافظ ابن حجر ظهر النظر في نبأ الخضر فتح الباري أكل إصابة ñetti téere yi boo ci mën ci dem mel na dem nga ca ba ca des donte dañ gën a yaatalante benn bu ca nekk dafa saxal ni xadar ab yonent la waaye nekkul wàlli yu abu xiyaan borom albaxru almuhit kooku tamit tafsir bu mag la moom it saxal na lu mel ak ñeneen ñu dul ñoom al imam badruddin al ayni kooku morom ibn xajar la woon badruddin al ayni moog ibn xajar ñoo ak ak maaslan ndax badruddin al ayni ñoom ñaar ñoo bokkoon benn dëkk bu nekk ibn hajar di jàngale fii muy jàngale fee ibn hajar sarxa buxaari tuddee ko fatxul baari ke sarxa buxaari moom tuddee ko moo umdatul qaari xon ma fàtte tur bi ala kulli xaal sarxa na buxaari moom it moom badruddin al ayni doonte nag sarxa ibn hajar moom moo gën a siiw badruddin al ayni mu ni والكلام فيه على أنواع وقت قدر دال أي ميري فصون يبالي لا من النوع الثالث نتيل وقت بنت في نبوته موي سقل أك يننتم من فالجمهور لجن سيو تبرم خمخمي على أنه نبي وهو الصحيح لجن سيو موي أب يننتلا تنين سقل الموي لجن وير الإمام الألوسي إمام الألوسي مومت موتالف روح المعاني روح المعاني تفسير مقلة إمام الألوسي من فالجمهور على أنه عليه السلام نبي وليس برسول nee na ab yonent la dëgg la nag yonent nabi ak rasul am nañu wute ndax rasul mooy yonent bu ñu yónni nabi nag mooy yonent boo xam ne yonent nga jox lañ ne nubu waaye kenn yónni wu la nee na kon nabi la waaye nekkul rasul am na ñu ne rasul la am na ñeneen ñu wax nii tamit nabi la mu nit li wax jooja nga xam ñoom lañ ci wax mu teg ci ni adillatu man dahaba ila alqawli bi nubuwati alxadr alayhi salaam léegi nag lan mooy tegtalu xam nga tànk wax naa la tegtalu ñi nga xam ñoo wax ni xadir wali yàlla seeni tegtal daanaka boo ko xoolee ba ci biir dafay nuroog sagaritan sagaritan moom loo ca bari la bari la bari la jarul yóbbu ci tailleur parce que mënta ñëw mbubb ñii nag mu ni adilla man dahaba ila al qawli bi nubuwati al xadr alayhi salaam ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne xadr ab yonent la mu ni inna al adillata ala kawni al xadr nabiyan kathiratun jiddan takaadu tafuuqu al xasra tegtal yi mën a sukkandiku ba wane ne xadr ab yonent la muy dafa bari lool bari waay goo xam xaw tuuti kon sax mu jafee indi yëpp mu ne waaye nag dañuy tànn yi te gën a siiw rek indi ko bi ci njëkk bi mooy mu ni siyaaqul qissa bi umumiha yadullu ala dalik maanaam nettali bi ñi ko alquran tëjjee boo ko toppee ba mu yegg muy dafay firndeel ni xadar moom du wàlli waaye ab yonent la ndax bënn gi mu bënn gaal geeg rey gi mu rey xëy xale bi lii mënta am ci doomu aadama ju ami sañ-sañ lu dul dafa bàyyi koo ci wax yu bàyyi koo ci suñu borom moo tax al imam qurtubi mu ni wal ayatu tashhadu bi nubuwatihi li anna bawatina afaalihi la takunu illa bi waxyin imam al qurtubi mu ni aaya ji tax benn tegtal la buy wara ne ab yonent la ndax boo xoolee bitib li muy def dalay wan ni lii nit sañu koo def wala mënu koo def lu dul ci ak nubuwa la jaar nga doog koy def الحافظ ابن حجر مني وغالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال إنه كان نبيا لأكت خبارا يأك موسى بوقت بتبير موي تكتل إلي والنموم كت أبيانا تلوان وعي نكل ولي الله كوك موي كم بنجك بي نعرى بمني وقت موقت فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آجد مسجارة تصير منكم موي فالرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي rahma jiñ namm ci aaya ji mooy wax yu bi te loolu waxoon naa leen ko ci ibni kathir nee naa leen rahma yërmande gi ñu koy tekkee am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ koo tekkee ak nubuwa te it nag qara'in yi nga xamante ni moom la mën a sukkandiku ci alxuraan lii lay taxal tomb bii nag pour mu leer ci sa bopp dellu ci adwaa'ul bayaan nga xamante ni fi idaahi al qur'aan bil qur'aan bu andi ab aaya day wur wut maatam wala ak nuróom rahma ci mu war ci alqur'aan yëpp nga xool ko ak bu ko yàlla askanele ab yonent lam say jublu bu ko comparaison boobu bi mu ko defee ba noppi ci la aaya ji doog a leer sa bopp moo tax bunt bi ma toll moom pour mu gën a leer boo delloo ci adwaaul bayaan moom di nga fekk loo xamante ni moom yasfil alina insha allah kon mu ni li ëpp ci borom xam-xam yi tafasir loolu lañ ko tekkee muy nubuwa ñetteel bi mooy Muusaa dani ko hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rusda damaa bëgg ñëw nga jàngal ma kon tarjir xadir gën na koo xam borom xam-xam yi mu xaqiqun yëpp dëppoo nañ ci ni du jaadu mukk ab nabi di dund ku dul ab nabi ëpp ko xam-xam déglu leen loolu bu baax te loolu lu lu xel lu xel nang lu xel di nangu la yonent nga xamante ni dañ koy tànn ci biir tànneef yi muy ab mbindeef ci biir tànneef yi sunu borom dina tànn koo xam ni kooku mooy tànneef ci biir tànneef yi ba noppi sunu borom di bàyyi ab waay buy taxawal fële mu di képp xam-xam kooku mustaxil mënul nekk. mu ne kon ñetteel bi mooy yàlla def li mu def xadir am xam-xam yu mu gën a xam Moussa yu bari ba di ko ko xamal la muy tekki mooy yonent la comme moom su ko defee nag yonent la comme moom ànd ak Moussa moo ko gën tekkiwul ni xadir da koo ko xam-xam de. nee na ko am na xam-xam yoo xam man xaw ma ko am na yu ma xam xamoo ko parce que yonent nga ma yonent loolu dong lay tekki waaye du jaadu ku dul ab yonent di gën a xam moo tax alxaafid ibnu xajar mu ni fa kayfa yakunu nabiyu taabian li gayri nabi naka ngeen yaakaar ni ab yonent dana ñëw di yàlla yàlla ngi di topp ci ginnaaw ku dul ab yonent mu ni loolu mënul nekk moo tax imaamu saalabi mu ni wa huwa nabiyun fi saairi al aqwal wax yi lu mu bari bari moom jàppal ni moom ab yonent la ñeenteel bi mu ni suñu borom dañu ko balaa lii bi majmaa al bahrayni abdun huwa aalamu minka soo demee si ñaari ndox yi daje comme ni ma ko tafsiree woon saab jaam bu la gën a xam ma nga fa alxaafid ibnu xajar mu ni kayfa yakunu gayru nabiyi aalamu min annabi naka la ku dul yonent di gën a xam ab yonent loolu tamit mën ta nekk kon jàpp ni ku gën ku dul ab yonent moo gën ab yonent moom loolu moom mooy pas pas zanadiqa yi nga xam ni moom ay yéefari xulat lañ ndax gars yi bokk na ci seen wax yi ñuy wax mooy maqaamu nubuwati fi barzaqin fuwayqa rasuli wa duna annabi mais wàllu yu yàlla wàllu yu yàlla fuwayqa rasuli moo tiim yonent tuuti ah dégg nga de fuwayqa rasul ma maqaamu nubuwa mooy nubuwa fuwayqa rasul moo tiim ab yonent rasul tuuti waaye wa duunal wali moo yees wali maanaam wali yu ko sut kaw li mu bëgg a wax daal mooy ab wali moo sut nabi mu jeex loolu la bëgg a wax wali yi dana am ci ay xam-xam ak ay mbir yoo xamante ni ab yonent du ko xam suñu borom nee na ko huwa aalamu minka te kon huwa aalam minka moo la gën a xam mooy ci xeeti xam-xam yooyu nga xam ne la ko doon xamal loola laa shakka mënta nekk ku dul ab yonent juróomeel bi mooy wa ma faaltuhu an amri xam ngeen waxoon na ne wa ma fii borom xam-xam yi luga yi dañ ciy wax ñii ni maa maa naaf li nafi la ñii ni maa gi maa mawsuula la maa gi li nafi mooy wa maa faaltuhu lii defuma ko an amri ci sama mbiri bopp parce que dañ ma kaa digal waaye gars yi duñ ko teg seen dañ naan maa gi maa mawsuula la wa maa faaltuhu maa mooy lii ma def nii an amri ci sama mbiri bopp la kon al imam al qurtubi mu ni yadullu ala nubuwatihi wa annahu yuuxa ilayhi loolu mu wax ñeneen la waaye waxi mu fassiri ni ñoom dañu wax ne li muy tekki mooy maa ji ah day dàq mooy lii ma def defuma ko ci sama mbiri bopp mu ni kon loolu day wane ni kon dañ ko koo waxyu dañ ko koo tant te kon ab yonent la ibnu kathir mu ni wa ma faaltuhu an amri mu ni ay lakinni umirtu bihi wa waqaftu alayhi dañ ma koo digal mu ni wa fihi dilalatun liman qaala bi nubuwati alxadr alayhi salaam mu ni kon tegtalangoo ci wane ni xadr kon ab yonent la ba léegi alxaafid ibnu xajar mu ni lii ba léegi tegtal la boo xamante day wane ni kon amul waasata boo xamante ni moo doon dox diggante xadar ak nu mu tuddati Moussa di jottali xadar pour muy jottali Moussa déedéet waaye xadar daf doon jël ak wax yi suñu borom subhanahu wa taala kon loolu ba léegi tegtal yi nga xamante ni dañ ciy mën a sukkandiku ci wane ni xadar nekkut ab wàlliyu waaye ab yonent la abu xiyaan ci tafsiram tamit kadalika lu mel noonu la saxal الشيخ عبد الرحمن بن عبد, عبد الرحمن الخالق بما تدون تانك mu ne wala shakka anna ma faalahu alxadr faalahu an waxyin xaqiqiyin min allah sikk nekkul ci ne li xadr doon def muy da koo jëlee ci wax yu bàyyi ko suñu borom walaysa mujaradu xayaalin aw ilham jékki-jékki rek muy dañ ma koo deey wala dafa ñëw ci sama xel mi comme ni ko gaa yi defee xaddasani qalbi an rabbi xaddasani xam nga ni ñu koy waxatee seen baat yooyu mu ne déedéet tekkiwut loolu de mu ne li anna qatla nafsi laa yajuuzu bi mujaradi zanni allahu akbar mu ne rey bakkan lu garaaw la ay njoor tak dañ ma koo dee ak yooyu kenn du ci sukkandiku pour rey bakkan te xadar ku ne xam ne ni dafa jinne jàpp ko jinne sax du ko rab jàpp ko ku yite woon la kon loolu kenn du ko def ci ay njoor tak ci foog ak dama koo yaakaar waaye dañ koy def ci fekk dañ koo tege ci al waxyu sadiq muy waxyu gu dëggu gu bàyyi ko suñ borom kon am na yeneen tegtal yoo xamante ni mi ngi ci des damay ragal ni waxtu bi mën naa gën a bari kon dañuy taxaw noonu insha allah bind bii di ñëw dinañ continuer les ci tegtal yi nga xamante ni ñooy war ni xadar ab yonent la waaye suñ ci noppee indiwaat beneen bunt bu beesaat mooy ndax xadar mi ngi dund ba léegi wala déet ndax wax naa la bunt boobu bunt bu garaawa ngoog tamit parce que xadar mi ngi dund ba tey bu ñu jàppee ne xadar faatu na rek mooy kon gaa yi bare bare dinañ leen kàcciloo parce que ñu bari da ngay ku yeewu ci ay ngelawam rek melenu ba kii xam nga wax dëgg yàlla may faral di wax gars yi histoire yoo xamante ni day lekk yàpp ba suur këll na xam nga yàpp ak meew ku koy lekk faw nga leer yàpp ku koy lekk dinaan meew da ngay leer diw daa ànd ak leer ah man de bu ma ko doon am bis bu nekk danaa leer bu soobee yàlla xam nga loolu moom jë leer googu jër bi yéen kenn su ko defee leer googu ci la ñuy maska nit ñi boo génnee nga naan xadar moo ma nekk li barki démb ci ngoon fekk li nga jàpp mooy xadar mi ngi dund ba tey kon leeral masala moom masala mu am solo la ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq wa sallallahu sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bu nekk mi ngi sahih Bukhari mi ngi sahih Bukhari xadis la bu wér mi ngi ci Bukhari te même boo dem delloo ci tafaati yi da nga ko ciy fekk waaw mi ngi ci Bukhari dafa naa doy na sax waaw xadis la bu wér mi ngi ci Bukhari ci ay riwaayaat yoo xamante ni pour nga comprendre ko dëgg sax faw nga dem ci sarxa bi ko Ibn Hajar dafa Fathul Baari boo ci delloo indi na yeneen riwaayaat yoo xam même ci kaw bi sunna ya ala kulli xaal mi ngi ci Bukhari wallahu alam
ci wàllu wàllu li nga xam ne nii moom am na ko dégg day mel ni yàlla dafa nekk Moussa wala nekk ay anbiya ak yeneen ak yeneen waaye dafa mel ni loolu dafa mel ni suñ borom daf ne da ngeen ko teg suñu mel ni daf ne su ma jaaxal ne ala séance bi la seen maanaam yooyu yëpp da ngeen ko teg fële lii nag laa leen indi na ko dañuy xale maanaam pour buntu boobu maanaam soo jeexalee ci buntu bi ngay dem ñu ci tuuti incha allah dañu ci def waaw bi nga xam ne fi ñu ñu ci def maanaam dafa nekk lii ba noppi ne loolu nag dama leen ko nekk mais na ngeen topp lii waaye boobu waaye bul fàtte dafa xam ne ulaayika alladina hadahumullah fa bi hudaahu muqtadi te ku yonent bi la ko joxañ xam nga kon moo lay wane ne maanaam dëgg la masala mu rëy rot na foofu si ndax sharaa man qablana huwa sharaana ndax sharia ñu jiitu moo suñu sharia wala déet masala boobu al imam ibni taymiya ci iqtidaau siraat al mustaqim fi muxaalafat ashaabi al jahim boo ci delloo leeral na ci leeral yu ama am solo yoo xam ne la min al ahamiyati al makaan ànd ak loolu lépp ñu xam ni sharaa man qablana moom du suñu sharia lu dul sariya man xamle naa lépp lu ci dëpp ak suñu sariya dañ koy jël waaye lu ci suñu sariya dàq duñ ko jël muy benn beneen bi ci des moom mooy sariya man xamle naa suñu borom nett yi ñu ciy nett yi ah inna fi qasasihim la ibra la wax ak waaru mi gis kon laa sa taxaw ni parce que ñooñu ñooy ñu ngeen ci war a rey alayhi salatu wasalaam beneen bi ci des mooy xisas yi léeg-léeg nettali ko li tàkk la yàlla di su su sulaabewaat nit ki wax naa leen ci xisa bi passé ni Moussa alayhi salaam coono yi mu jóge banu Israël ñi ngi ko sonal Firawna nga fële affaire yi affaire yi jaxasoo maanaam changé ko dundin mu dem gisaat affaire yu bees bu dikkaatee day tawar ne mi ngi mel ni xale bi pare rek ñu ne kaay dem fa kàmm loolu moo tax ma ne yonent bi alayhi salaam bi mu tolloo ci jafe-jafe yooyu ñu daal di koy ràññaane mu dem ci asamaan si kon nit lii du caagane seen ci comme ab sukkandikukaay bi sukkandiku suñu lépp waaye nag liñ ciy dellu bàyyi la tey nit li bii defe naa darsu fay bi rek day firndeel ni kon xam ko lu am solo parce que dañ cay sukkandiku ñenn ñoo xam dañuy askanoo ci diine ba noppi ñu si ñukk njàngale yonent bi dem ci jàngale yi ñeneen waa su boobaa nag salaat bi foofu lay amee solo parce que su boobaa xam nga loolu du yoon parce que bu fekkente ni da nga cee bëgg a sukkandiku tax nga bàyyi njàngale yonent bi ngir dem di jël ci njàngale yi Moussa dañ lay wax yonent bi la mu waxoon bu gisee Amar ibn Xataab yor aw fooy ci tawat di ko liir dafa mer jël ko xut ci sànni mu ne ko bu Moussa jëli soon balaa xolama seen sama gannaaw lay topp wallahu alam kon béy
mbokk bi leen fi doon salaat